niroog gor olof yi dañu wax ne encore une fois géwël bu rëpp ci xare lépp lu mu jiib lu nekk xéeb ko na sénégalais yi loolu ñu dugal ko seen bopp gis ngeen tey régime bi fi nekk moo waral gaal yi seer nii régime bi fi nekk tey moo waral gaal yi nekk nii parce que mool yi amatuñu dara lu ñu war a liggéey mool yi gisatu dara lu ñu war a jàpp kon bu fekkente dañoo am en personne bu ñuy wax Ousmane Sonko ñu bëgg koo sàkkal pexe képp ku ko bëgg sàkkal pexe xamal ni jeunesse su Sénégal nga pare pour sàkkal la pexe mais lan daan dellu gannaaw moo xam nii ci Khalifa Sall mais gars yi kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen yéen leen soxla kaay leen moo xam ci Khalifa Sall moo xam ci Karim Wade quel que soit alpha nanu xam ni ñun duñu koo xamante ni dañuy sànk Ousmane sonk ci noonu parce référence bi nu am mooy Ousmane Sonko yaakaar bi nu am mooy Ousmane Sonko te dañu taxaw képp ku sànq pour Ousmane Sonko sànq Ousmane Sonko ñu taxaw pour sànq li nga xamante ni yow mooy sa nguur wala it mooy ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yow li may wax ñii doon xam nañu bu baax li may wax tey bépp mool boo gis bu nekk mi ngi am lu muy doytu grâce à Macky Sall yow yaay ki nga xamante ni yaay jaay géej gi tey torox tee amee bu torox amee mool yi di dund loo xamante ni kenn tegu leen ko kudul yow ah yëgal ni yow sa ah bopp ah ñoo ngi lay baral loo xamante ni Ousmane Sonko mi nga xam mooy avenir bi doon yaakaar bi daa ngeen ko bàyyi si nii wala daa ngeen ko bàyyi si ne sinon ko dinañ la génn pale da ngeen di woote mburu ak soow daanu daqaar ndayu mburu ak soow képp ku yaakaar mburu ak soow ak ku mu mënti doon ku suba nag nanu xam ni suba la suba gars suba na ngeen pare te xam ni suba la suba nii Ousmane Sonko dañ kay bàyyi Sénégal gi li fi gën a yomb mooy jigéen ngeen naan violé di def ay complot naan violé Sénégal li fi gën a yomb gars yëpp xam na ni Sénégal jigéen moo fi gën a yomb yaa ngi dégg kon nii ko Ousmane Sonko tey bu soxla woon kaneen ak kaneen kaneen ak kaneen ku dul si jigéen daf koy am ci mim réew mais sénégalais yi sonn noonu ah parce que lu tax ay sénégalais ils sont fatigués li leen ka teg mooy yeen tey boo demee ci tànganaa yi mënatuñu liggéey sénégalais boo fi gis bu nekk caagi rek soow lay reere sénégalais boo fi gis bu nekk mbiskit ak meew lay reere da ngeen doon raam li doon raam dugg na si ñag bi te bu duggee si ñag bi xaw ma kan moo ko fay génn mais yéen du ngeen ko fa génn ñu ngi leen di xaar suba partout dans le Sénégal fu ngeen mu yëngoo fa dana fa yëngoo fu ngeen bëgg mu safe fa dana fa safe lépp lu ngeen dawul guddi daw leen si bëccëg duñ si daw lu day na tarfatal ay ni parce que bu dee yéen bu dee yéen toroxal ngeen nu ba pare parce que jaay géej gi weesootul toroxal nu bu dee yéen toroxal ngeen nu ba pare parce que fekk fi sunu pétrole signé ak ay contrat yoo xamante ni n'importe quoi la kon bu dee toroxal toroxal ngeen nu sëg quel que soit alpha ak ci côté bu mu mënti doon li ma leen bëgg xamal ak li leen sénégalais yi di xamal mooy li nuy wax mooy ne touche pas Ousmane Sonko loolu na dugg seen bopp parce que mooy avenir bi nga xamante ni mooy avenir u 2024 xale yëpp Ousmane Sonko la ñuy xaar xale yëpp Ousmane Sonko la ñuy seet lu ngeen bañul lu ngeen si bëgg lu ne suba laa la wax ma Macky Sall yow mosoo daw billaahi wallahi taalaahi suba di nga daw yow di nga daw kudul yow dina daw yow mosoo daw di nga dëgër bopp sëriñ sëpp ñaanal la nga bañ gis nga lenn la nu bëgg nga xam ko force force rek nga xam tey bu subaa force mooy ñëw ak yow ak képp koo àndal ak ku mu mënti doon ku ne tu te prends pour kii yéen kan ngeen yab yéen kan ngeen yab yéen sénégalais yaa ngi ni guddi ak bëccëg suba ngoon bëgg teral seen ndey mënuñu teral seen ndey bëgg teral seen baay mënuñu teral seen bay grâce que à toi ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yow te Aliou Sall mi nga xamante ni mooy sarak yor suñuy nangami nangami milliards bëgg si jot mënul si jot ki nga xamante ni mooy Mamour Diallo ñu jugé ko jugé wuñu ko ñu topp ko en 94 milliards bëgg si jot mënuñu si jot et cetera et cetera ngeen di nag suba da ngeen di toroxal Ousmane Sonko gars yi partagé leen vidéo bi partagé leen vidéo bi duñ ci daw duñ ci day te it lu ngeen bëgg yéen ak ñi ànd ak yéen ñu dem ci ak yéen ba mu saf-saf ah mais yéen di te prend pour kii ah yéen kan ngeen yab yéen yéenay ñan wala da ngeen yaakaar ni réew mi da ngeen ko doon seen ndey wala da ngeen ko doon seen baay wala da ngeen ko doon seen maam yéen ñi ngeen xamante ni yéen a fi nekk occupé sénégalais yi dama bëgg nga xamante ni maamu ña doon xeex yéen seen maam yi bokkuñu si woon mm-hmm. ndax bu si seen maam yi bokkoon bu si seen maam yi bokkoon daa ngeen réagir naneen nu dul noonu ndax réew mi nga xamante ni mooy réexu mooy réew wu Cheikh Ahmadul Qadim mi nga xamante ni korog bin koy yóbbu dafa ni nafaari xayrillaahi xabla fii ndari bi ahlil badiri usurul kadiri nafaari xayrillaahi fii ndakaara kullu asan lii jaral makaana allama nii rahmaani fii la ko waxee woon ci géej gi ne allama nii rahmaani fii safina bi an na nil xadimatu sil medina moomu réew daan fi nekk di tëggoo Serigne Touba moomu néew réew daan fi nekk di tëggoo Seydil Hadji Malick moomu réew daan fi nekk di tëggoo Cheikh na Cheikh Saddu moomu réew daan fi tekk di tëggoo Maulana Cheikh Ibrahima borom nabiyun azimun lam taral ayni mislahu ma ni boobu réew duñ fi nekk laa wax Seydina Limaamu tëdd fii si jàmmalaay ni yaa maqsaral insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum ñun ñuy daw ñun ñuy daw ñun daanu nekk ci moomu réew xam suñuy maam yi li na daj pour réew mi taxaw ñun daanu nekk ci moomu réew xam suñuy mbaay yi li ñu daj pour réew mi lépp neex ñun u nekk ci mim réew xam li nga xamante ni 2012 moom la ñu nekk woon ak Ablaye Wade yow Ablaye Wade daal la gën ku dul yow Ablaye Wade ak gën yéen ñëpp buñ leen boolee dugal leen si pot Ousmane sonk du seen morom tey nag ngeen ni da ngeen di sànk Ousmane Sonko xam leen ni sànku leen Ousmane Sonko les jeunes sénégalais l'espoir ngeen taxaw pour sànk ko mais du yomb du yomb fu ngeen doon laal Ousmane Sonko nee naa leen cuuraayu dëmm la cuuraayu dëmm la boo ko laalee xoolal xam nga nemmeeku de tour lañ doon wax léegi Ousmane Sonko soxlootu sax muy nemmeeku de tour te pourquoi lu tax soxlootu muy nemmeeku de tour mooy xool yëpp yàlla dugal na si Ousmane sonk te manu leen ci dara gis nga xul innal fadli bi yadillahi yuuti man yasha Macky Sall da nga war a respecter doomu aadama yi yow ak ñu ànd ak yow Macky Sall gis nga dama lay joxaat benn histoire yant yàlla Souleymane nguur la yoroon bi muy dox diir am benn voyage bu mu doon def ànd ak jinne yi ànd ak lépp moom yent yàlla Souleymane ci boppam am benn euh, euh, xorondong boo xamante ni ñu ngi koy tuddee fourni moom xorondong boobu taaxiyatu la tudd tànku nday jooram nee naa la def koy soo korog bi ko yent yàlla Souleymane dere moom xorondong bi li mu wax xorondong yi ay moromam dafa ni leen yaa ay yo al namlu adxulu masakinakum la yaxtimanna sulaymaanu wa junudukum wa hum laa yaxsiruuna yéen xorondong yi daw leen ngeen dugg seen kër parce que sulaymaan ngay ñëw amaana bu ñëwee mën nañoo dëggaate ndax mbooloo mu rëy la àndal tey dëggaate bi mu nuy dëggaate du ko yëg yant yàlla sulaymaan ba mu ñëwee daf ko fekk ci biir xorondong bi parce que yàlla mayoon na écoute yant yàlla sulaymaan lépp luy naaw sulaymaan doon sa kilifa waaye lépp luy dox ci suuf sulaymaan doon sa kilifa daf ko génn ci biir xorondong yi ni ko ndax danga yaakaar ni damay dox ak di tooñ ak di dëggaate nekk di agressé mu ni ko déedéet dama ni la amaan na mën nga koo def si njuumte yent yàlla Suleymaan ni ko jalax ni yàlla bind na lu ma gën a tuuti ba pare mu war ma ma ki nga ni kenn du la wax dëgg te ca prend pour kii yow lu tax dun la wax dëgg. awoy ah ah Macky Sall yow sa bopp dama la bëgg nga xam ni xeex sa nguur gii ba nga jóg fi loolu jaamu yàlla gu rëy la. loolu dafa doon loo xamante ni jihad fi sabilillahi la. Mm-hmm. sa parce que pourquoi Macky xanaa xamoo yant yàlla Moussa ak yant yàlla Firawna bi nga toogoon ak Sidi Lamine doon ko wax Macky da nga nettali histoire mais xamoo histoire ndax lu tax xam xamuloo histoire yant yàlla Moussa liir la woon Firawna nekk fi ni ñëpp la bëgg a rëy képp koy liir doon góor Firawna daf lay rey yàlla ni ko yoroo nguur ida arada amru shay'un an yaqulu lahu kun fa yakun makki bu dee firawna moo la ëppoon xam-xam ñaar fukki at ak juróom-benn na la jiitu mu jël pale ba ñaar fukki at ak juróom-benn nekk na ci biir armeel di ko fanaan di garder armeel bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon korog ban ko laajee dafa ni lépp lu mu mënti doon lu nekk ba fa buur ba ñëwee laaj ko ñu wax ni ko na mooy garder li may wax sax xam naa ne ëpp na sa bopp makki yow li may wax ëpp na sa bopp parce que sàcc ngeen tal waaye déglul bu baax li ma lay wax yow ak ñi ànd ak yow Moussa ci boppam Firawna moomu ba ko buur fekkee foofu ni ko yow buur ba ko ndaw li fekkee foofu ni ko buur daf la soxla xam nga lu ko Firawna wax dafa ni ko nekk naa fi ñaar fukki at ak lu teg di garde lu dugg xam naa ko ku fi dugg xam naa la kañ nga fi dugg xam naa la foo dëkk xam naa la noo xam naa la noo xam naa buur bi jël ko teg ko ci biir palais bi Firawna fekk fa fukki buur fukki buur fukki buur fukki ndaw kon fukki ndaw ak juróom benn Firawna rey fukk ya ak benn wacca fa juróom ya kon léegi dèjà ñoom juróom ya sa des gisuñu kenn ku nu war a àndal ku dul Firawna ñu ànd ak moom bi nu àndee ak moom Firawna toog yaakaar ni nguur gi du fi mës a jóge ah yàlla ni ko ah ah moom moo nguur man maa moom nguur yàlla yàlla ni ko Firawna moom moo nguur man maa moom nguur firaw na dem sa seetlukat ya ñu ni ko ki war a jeexal sa nguur ñëw na firaw ni góor gu fi juddi dinaa la rey booy pardon tuuti bala buy daanu firaw na góor gu fi juddi dinaa la rey moom firaw na moomu yow Macky yëgooni firaw na bi yent yàlla Moussa juddoo ba nu jël ko sànni ko ci géej gi ñu bëttal Firawna doomam feebar docteur bi daal di koy wax ni ko ndoxum géej rek sa sa doom feebar bi mu feebar ndoxum géej rek moo ko mën a faj il faut que ñu bëttal que li nga xamante ni mooy forage mu mën a jóge ci géej gi dugg ci biir pale bi mu nekk piscine Firawna yaayam ah, Moussa yaayam sandi ko ci géej gi bi ko yaayam sandee ci géej gi moom Moussa moom ci boppam kees ga di daw di daw di daw di daw di daw bu dugg ci kër Firawna Firawna ni daf ko bëgg a rey Asiyatu nga xamante ni moo doonoon jamono Firawna man ngaa yàllaay waxal waxuma Macky Sall léegi romb naa Macky Sall parce que amul assurance ndax Seydi Aji Malik nee na wa man lam yaqarahu wa lam yatanfamu fa innahu yuhayyimul hayyimul baayima ku jàngul xamuloo sa dund yëpp dund li ngay dund dund gi ngay dem yaa ngay ñëw de mais ñu comprendre sa dund yëpp li ngay dund xam nga dund lan dund bàyyi ma parce que lu tax wa laylu ko naa imun nee na sa guddi dan nga koy nelaw wa ko baatinin sa bëccëg yëpp ay niil lay doon mais Macky Sall firaw na Moussa dugg na këram te bi Moussa duggee këram yëgoo li xew ba ko Aseetu waxee ni ko it bu ko rey na mën nañ ko téye mu jariñ mu ne ko xanaa nga jariñoo ko waaye man amalu ma intérêt firaw na moomu moo yar Moussa yar Moussa yar Moussa yar Moussa ba yàlla dogal Moussa génn kër Firawna bi Moussa génnee kër Firawna yàlla yebal Moussa ni ko tey jii kër Firawna nga jëm da ngay attaqué ji parce que nguur gi yaay borom Ousmane Sonko domaine la nekkoon yaa ko génne Macky bëgg koo xañ saleel yaakaar ne da nga koy toroxal yàlla ni dinaa ko yóbbu sa waxukaay ba te bu boobaa doo ci mën dara yàlla yóbbu ko ca waxukaay ba nga kay fay salaire mënoo ci dara muy génn ay dossiers yoo xamante ni jaaxal na sénégalais mënoo ci dara muy dox di dox di dox di dox di dox ba nu ñëw 2019 mu jël troisième position mënu leen ci dara mhm. gars yi ñuy dox di dox di dox di dox di dox ba tey amu leen lu ngeen ko mënul tuumal lu dul naan Adji Sarr moom mi ngeen jël aakimoo ko Adji Sarr ndey ba seet Adji Sarr ay mbokk ma ngi koy seet parce que da ngeen ko jël pour en del ko aakimoo ko pour li ngeen bëgg mais daan leen xamal ni gënu leen nu muus kii aj ku seenu rek la bañ te ñun dañuy téen te téen gi ñuy téen mënu leen ci dara nous sommes de sénégalais fii na nu dëkk amuñu passeport amuñu visa mais suñu réew kenn duñu koy yàqal gis nga na moom moom la Moussa mujj jël nguuram toog fa na nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina jël sa nguur ci nii Ousmane Sonko dina jël sa nguur sa ne parce que it yàlla moo jël xolu Ousmane Sonko jël xolu doomu aadama yu dugal ci Ousmane Sonko ngalla waayi Macky Sall noppalu leen noppalu leen noppalu leen suba lu ngeen pare pare nan ko gannaaw suba lu ngeen pare pare nan ko gannaawaat suba lu ngeen pare pare nan ko kon nag ci kaw ci kanam vive Ousmane Sonko parce que du jàggiru Ousmane Sonko la nu àndal mais nous sommes de Sénégalais nous sommes des citoyens de Sénégal France doomeeram ji France mi nga xamante ne dañu war a xorom cottu ndayam moom France ñëw guddi ak bëccëg di saq suñuy doom di saq su li nga xamante ni mooy sunu ay bain or bi français yee koy sàcc pétrole bi français yee koy sàcc ah fer bi français yee koy sàcc jën wi français yee koy sàcc France moomu nag ñoom ñoo la jox ngem ñoo la jox ngem yow mosoo bëri Macky yow ku la gis-gis tappet ku la xool-xool tappet korog bi nga xamante ni Ablaye Wade daf lay tuumaal wala Ablaye Wade daf lay laaj affaire xaalis ba nga jële woon sa Omar Bongo sa Serigne Bara Mbacké nga dawoon yow ku la xool xam ni tappet dëgg dëgg dëgg Ousmane Sonko du daw ci benn Serigne parce que Ousmane Sonko ñun jeunesse bi suñu euro la Ousmane Sonko ñun jeunesse bi xoolal sunu rôle te aussi fii lañ ko teg sunu bakkan avant ngay laal Ousmane Sonko yow ak sa njaboot jaaral sunuy néew ba pare du dañ la décider say sëriñ dañ la wax ni la foog nga rey ay nit pour jaar seen kaw yow li nga jot a sacrifier rek ci ñi nga xamante ni dem nañ ci calendrier bi doy na yow képp moo tax Sénégal gi nee naa képp kuy lekk jën. kuy lekk jën ba kuy dem géej baa kuy jëriñoo ci jën mm-hmm. billahi wallahi taalahi heure boo àndeek Macky Sall wala nga ànd ku taq si Macky Sall yëgal ne yow doomeeram nga billahi wallahi doomeeram nga ci boppam képp koo xamante ni laa wax ni ngay lekk jën wala mi ngay jënd jën di jaay wala it mi ngay dem géej di teer parce que yow yaa toroxal jaaykatu këriñ yi yow yaa toroxal jaaykatu fonde yi yow yaa toroxal jaaykatu gerte yi yow yaa toroxal baana baana yi yow yaa toroxal mool yi yow yaa toroxal baykat yi yow yaa toroxal docteur yi yow yaa toroxal sàmm bi yow yaa toroxal yow yaa toroxal yow yaa toroxal Macky kan nga teral kan nga teral. kenn kenn nee ma rek nee leen nee leen Macky kan la teral. kan nga teral yow Macky teraloo kenn. yow teraloo kenn. teraloo ma sàmm teraloo ma tam. yow teraloo ma sàmm teraloo ma dem. Macky xoola bu sonn xoola rendez-vous. rendez-vous bientôt. rendez-vous bientôt yow loo bañul ak ku tax ci yow lu mu bañul lu nekk bañu ko ci. billahi wallahi. ñun li ñuy def ñun dañu dee parce que rey nga nu ba pare yow ñun dañu dee ñun ay néew yuy dox nanu dee nanu ba pare rey nga nu ba pare ah. yëgal yëgal ni lépp loo pare pare nan gis nga bu dee koso wallahi matul seede bu dee koso Sénégal yëpp mënoo leen jël dugal leen ci koso ni mais li ma bëgg wax mooy les gendarmes li ma bëgg wax mooy les policiers yëg leen ni ci biir kër yi ngeen génne yëg leen ni Macky Sall daf leen di utiliser mais li nga xamante ni sonn gi tax ñu naan sonn yéen policiers yéen a gën a sonn yéen gendarmes yi yéen a gën a sonn ñun nag na ngeen gore ñun citoyen sénégalais xam naa ne ñun civil yi daanu gore ba jeunesse su Mali mi nga xamante ni ñoo fi jëlee Ibaka ñoom duñu gën a gore parce que Afrique ils sont waaye it yéen militaires yi. yéen gendarme yi yéen policiers yi seen ay patriotes yoo xamante ni seen ay gars yoo xamante ni yéen a bokk même métier bokk même li ngeen di def. Ah ñooñu nga xamante ni ñoo nekk Mali am nañu jomu am fulla am fayda gu day naka ba seen réew taxawee nekk nañu ci seen booru njaboot yëg leen ni ci biir kër ngeen di génn toroxal bi ñu mëkki di toroxal du ñun kese lan nu koy toroxal. yéen gendarme yi ñoo ngi leen di toroxal parce que yéen a ngi ci télé bi di laaj 1000 francs 2000 francs te feeñul ci yéen dara li ëppoon solo mooy li ngeen di sonn guddeeg bëccëg suba ngoon ñu fay leen salaire yu mat ngeen mën a jaaxal fanaan seen kër yi di dóor muy neex waaye da ngeen di dóor muy daq dóor muy dàq boobu nag moo jeex ci miim réew ah te it xoolal ci kaw ci kanam Ousmane Sonko rêvé jeex na Ousmane Sonko rêvé jeex na du jaagiru Ousmane Sonko jëmmi Ousmane Sonko la ñu àndal mais idéologie Ousmane Sonko non neexul ba neexul mais Sonko du nit ah idéologie Ousmane Sonko grand bokkut ak beneen idéologie politique seen idéologie Ousmane Sonko boo gisee programme bi mu am si géej gi en tant que mool da nga naan déedéet ah boo gisee programme mu am ci wàllu pétrole bi tey jii yow mi ak kii ak kii ak kii ak man ñun ñëpp xam nga ancien mool lan na am ñun li na am lenn la na am li na am xam nga fu mu doon ah. li na am fii la yam bu ñu jógee si géej mujj après si mbaar yi la ñuy toog mais c'est pas ça ñun waruñu toog si si mbaar yi sa doom balul day nii naan dafa dem géej xale bi tey buñ ko sa di dem géej jaaxle kër a waral mais kii waroon na fekk tey ji mu doon koo xamante ni xoolal ma nga ca l'école ba wala ma nga ca leçon wala nga ca lii wala ma nga ca lee ci loo xamante ni war nanu mën a doof war nanu mën a def xam-xam ci moom pourquoi pas nanguwunu def xam-xam ci moom pourquoi pas pourquoi pas ñu nuy sacrifier parce que dañu bëgg ñoom seen doom yi ñëw jiite suñuy doom yi ñoom dañu bëgg seen doom yi ñëw jiite suñuy doom yi mais loolu du dem gars yi maa ngi yemale foofu live li ma bëgg ñu xam ko moo di quelque soit alpha lu ngeen pare pare nan ko Ah lu ngeen pare pour Ousmane Sonko rek yëg leen ne da ngeen di jaar suñu kaw jàll ba pare ñu doog a xam ngeen doog a xam na ngeen di def mais lu ngeen pare suba de pare nañ ko lu ngeen pare ngoon pare nañ ko lu ngeen pare bëccëg pare nañ ko les Pastef waa maa ngi lay ziar Elimane Laay Maxtaar Laay Maysa maa ngi lay ziar depuis France maa ngi ziar ga yëpp di kontaan bu baax a baax a baax toujours nii rek toujours nii incha allahu rabbi ga yaa ngi nii vive Macky Sall vive Macky Sall defal rek yal na nu yàlla defal jàmm yal na nu yàlla defal tawfiqul ilahi allahumma inni aqrab min kulli gharib wa akram min kulli karim wa awjuda min kulli jawad wa ahfaz min kulli aafid wa lutf min kulli lutf allahumma inni aqrab min kulli gharib wa akram min kulli karim wa awjuda min kulli jawad wa ahfaz min kulli aafid wa lutf min kulli lutf bi haqqi ismika ya latif allahumma latif bi ibadi yarzuqu man yashau wa huwa alil azim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومعدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ci kaw ci kanam insha Allah rabbi sa wax rafet na